ñu ngi yëkkati kàddu yu bàyyi ko ci sunu jëwriñ di sunu sëriñ di sëriñ Cheikh Anta Mbacke ibnu Cheikh Mahamadou Roqaya ñaan sunu borom may ko fan lool waa ànd yaram ginnaaw bu mu jotaatee ndigal ci sëriñ Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbacke xalif général des yàlla fi yàgg lool te ànd wàcc fi ci sëriñ Abo Mohamed Mbacke xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbacke yàlla na ko fi sunu borom yàggal te doole ak wéram ak mbooloom njabootu maam Cheikh Anta gépp ñu ñëw nag ci liggéey bi nga xam ne mooy sunu àdduna di sunu alaaxira ñun njabootu maam Cheikh te moo di addiye ji nga xam ne njabootu maam Cheikh Anta nañ ko ku fi nekkal Serigne Touba at mu jot eh, Serigne Cheikh Anta nag ginnaaw bu mu soññee boppam soññ ay rakkam soññi waat taalibe yi mi ngi leen di jotal ay kàddu yu cant kàddu yu cant yooyu nag nee na bépp liggéey boo xam ne bàyyi ko ne ci xalifa général des mourides jëm si ci moom. gis na ne takk nañ laxasaay ya ba sëriñ bi am ko nam ko bëggee bépp ndigal boo xam ne bàyyi ko na ci njabootu maam Cheikh Anta jëm si ci moom it gis na ne takk nañ laxasaay ya ànd ko moom ba mu sottee ndigal loo xam ne bàyyi ko na ci njabootu sëriñ Tuubaa yi moo xam muy xel ko wala fu mel ne moom gis na ne lépp luñ ca man def nañ ko ca takk laxasaay ya ba am ko ni ko bëggee. gis na it liggéeyu sëriñ Modou Rokhaya yi nga xam ne mënuñu ko koo ñàkk ko liggéeyal ci yeesalaat gi muy yeesalaat kër yi. gis na ne taalibe yëpp àndandoo nañ takk seen laxasaay ba mu am ko ni mu ko bëggee sëriñ bi di leen ci sant di jawaan nag ci cosaanul addiya ji nga xam ne moom sunu àdduna sunu alaaxira la xam ngeen ni addiya Daaru Salaam ci atum 1983 ca fukki fan ya ak juróom ci weeru janvier di ab gaawu ci la ko sunu jàmbaar ju baax ja ak Cheikh Mouhamadou Roqaye Mbàkke joxe woon ndigal ne ñun addiya suñu ko noppee joxe ñoo mbaam yi ci mbedd mi ñoo yem fekk na booba mu naal jumaa wala mu naal jàkka wala moo xam lu naal muy jumaa jur yi ji nekk ci Daaru Salaam te eh, alxaaji Abdoulahi ja di ko àggale yàlla na ko suñu borom may ndam moo àggale ko tam doon jullikaay bi sëñ Tuubaa njëkk am ci dëkk bi mu dëkk dëkk bu mu moomal boppam jullikaay ba mu ci njëkk a def muy jullikaayu Daaru Salaam bi sëriñ Modou Rokhaya doon ko yeesalaat ci atum 1981 bi ñu demee ba war ko toll ci kuule ko ñu xamal ko ne ko sëriñ Abdou Lahad yërëm la ci jumaa ji moo tax mu joxu la ndigal mu ne luy tee ñu am ndigalul sëñ Touba loola dañ cay génn ndigalul sëñ Touba moo gën ci ñun lu mu mën a doon ci lañ arrêté jumaa ji mu ne desu àddiyaa koy àggaleeti waaye muudu moom noppi na ci woote nag la quinze cent janvier moo taxoon ma wax ko ne ko le quinze ci at mu ne ñu yóbbu àddiya ci weeru janvier tofal ca sart ya lii la waxoon murit yi woon fa daaru kee donnu seex ma donnu woon muxtaaru at moomu jox nañ sëñ Abdou Lahad 3 millions 500 mille francs wut 300 mille ne nay mooy doon takkoon gi takk say wi loolu sëñ Modou Rokhaya ànd ko ak njabootu sëriñ Modou Mamoun gi ak mboolem ku fi mas a nekkal nag maam Cheikh ca jamono jooja di sëriñ Ibrahima Mbacke Ndar yàlla sun borom boole dolli seen ngërëmul yàlla mu di ko liggéey ba ci jamonoy Cheikh Abdoul Khadir ci atum 1990 xam nga ne ci lañ jébbal Cheikh Abdoul Khadir 7 millions yoo xam ne sëriñ góor a Mbàkke yal na yàlla dolli ngërëmul yàllaam moom lañ def ca boppu leetar ba mu ànd ko ak njabootu sëriñ Mudu Maamun Mbàkke gépp ñu àndandoo sëriñ mu Mudu Roqee di wéyal liggéey boobu di ko jox sëriñ Abdou Khadir waaye xam nga ne sëriñ Abdou Khadir 91 la ko fi sëriñ Saalihu wuutu ci jataayub sëriñ Touba bi moom it sëriñ Modou Rokhaya njëkk ko jébbal 7 millions 500 mille francs ci ànd ko ak mbooleem njaboot gi yépp sëriñ Modou Rokhaya wéy di woote addiye jooju di ko woote ba ci 1996 le 28 juillet 1996 mu dem àjjana at moomu jébbal na sëriñ Saalihu fukki million ak juróom-ñett ànd ko ak njaboot gi bu ci nekk bataaxal yaa ngi fi loolu nag 1996 bi sëñ Modou Rokhaya demee àjjana sunu jàmbaar ju baax ji nga xam ne moo njëkk a wuutu sëñ Modou Rokhaya toog fi yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér ñëw nag takk ak laxasaayam ne man benn gopp la ma fi sëriñ bi bàyyil mooy bisub addiya ji fas naa ko yéene muy def bisam boo ma koy fàttali ko di ko ci ñaanal waaye fas naa yéene takk sama laxasaay ba addiya ji fu mu ko yéene yóbbu dinaa ko fa yóbbu sëriñ Cheikh daal di toog nag ànd ko ak sëriñ sa Amidoun sëriñ Amidoun di jàmbaar di ab koo xam ne bëggu dara lu weesu ngërëmul yàlla ak la yonent bi ak la sëñ Touba ànd ko ak sëriñ Saam ànd ko ak sëriñ Moustapha Caytu ak njabatu boroom gaawaan gi ñoo moom ñoo moom ñoo moom ci sëriñ Saalihu ba ci 2007 xam ngeen ne lañ mujj a jébbal sëriñ Saalihu 43 millions francs loolu lépp sëriñ Cheikh di seen doom di seen jëwriñ ànd ko ak moom tey soññe ci addiye ji 2007 ba 2008 xam ngeen ne Alaaji Baara nekk na fi xalifa général des mourides ba 2009 loolu sëriñ Amidoun jébbal na ko fi juróom-benn fukki million yooyu mu boole woon ak almet ga jébbalaat na ko fi itam juróom-benn fukki million ak ñett moom sëriñ Amidoun waaye sëriñ Amidoun nag daal di tànn dëkkaale ji ak boromam subhanahu wa taala yal na yàlla boole leen dolli seen ngërëmul yàlla sëriñ As Guédé imaam ju mag ja ka nga xam ne yittey doomu aadama yi doyoon na yitteem toog di xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun Mbakke ci atum 2010 moom day jébbal na sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Amin Baara benn yoon addiya tàmbalee ko nag ci di million waaye moom coow ci la continuer di ko jox Alaaji Baara di ko jox Cheikh Sidil Mokhtar ba ci atum 2014 xam ngeen ne Serigne Askede 2014 la tànn dëkkaale ji ak boroomam sëriñ Jiili wuutu ko fi ci toogaayub sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbacke fekk na sëriñ Asgede jébbal na sëriñ Mouhamadul Mountakha 172 millions 2014 ji sëriñ Asgede wàcc ab liggéey moom sëriñ Jiili tàmbalee na addiyam ginnaaw bu sëriñ Asgede mujjee yóbbu addiya 2014 ci 110 millions 115 mille 530 francs jooju nag ci la sëriñ Asgede wàcc. Euh, sëriñ jiili toog fi di xalifab sëriñ Muudu Maamun moom it yokk addiye ji di ko yóbbu ba dem ci cent quarante million ba dem ci cent soixante douze million ba ni addiye ji àggee ci lim bi mu àgg deux mille vingt mu laaj addiye ji ba ñu dajale ko mu war koo yóbbu sun borom ñëw ci moom ak dogalu borom bi subhanahu wa taala sëriñ Abo Mohammed di caatum Cheikh Mouhamadul Mamoun yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér. yàlla na àggale mboolem naal yi way juróom yu baax ya naaloon ak magam yu baax ya toog fi nag wuutu fi sëriñ Mouhamadul Mamoun Mbacke ànd ko ak njaboot gi yóbbu addiya teg ko ci loxol sëriñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha ci 232 millions 135 mille francs million millions 135 mille francs loolu lépp nag ñu am jëwriñ ju mat jëwriñ muy sunu sëriñ di sunu jëwriñ di sëriñ Cheikh Anta Mbacke yàlla fi yàgg lool te ànd ko wér Sëriñ seexante nag di wax murit ina leen 232 millions 135 mille yéen yóbbu woon daaw nañ xam ne booba jamonoy coronavirus la yaakaar naa ne corona murit xamu ko Sëriñ Cheikh nag ne daa bëgg ñu takkaat laxasaay yi fedd liwaat pas-pas yi xam ne Sëriñ Mouhamadul Muntaxa naal yi mu naalal lislaam ay milliards rekk koy defar te milliards yooyu kenn waru koo joxe kudut murit yi ndax kenn ku ci nekk wóor na la sëñ tubaa teral na la teraanga joo xam ne euh, am nga ca kersa ci fay sëriñ tubaa moo tax sëriñ Cheikh Anta ne daa bëgg addiya jii ñu dëgg dëgmal nga xam ne moom lañ bëgg a teg ci loxol Cheikh Abou Mouhamed xalifatu Cheikh Mahamadul Mamoun mu teg ko ci loxol sëriñ tubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa sëriñ Cheikh nee na course ba foofa la nekk nee na course ba foofa la nekk sunu jàmbaar ju baax ja nee na woon rawantiwu ma ci ay oto rawantiwu ma ci ay kër yu rafet ku ma jiitu ci sëñ tubaa laay kon nag ñun sun laxasaay suñu pas-pas suñu suñu suñu gëm-gëm suñu yaakaar lépp mooy nañu boolewaat li ne ci poos yi jox ko ndéem bëgg nañ soxla su ñëw ñu faj ko sëriñ Cheikh Anta nee na mi ngi soññ ñëpp le 8 janvier ci Daaru Salaam bëgg na daal lañ joxoon sëñ tubaa daaw nañ ko yët ñaaram baa ñettam su fekkee ne bëgg nañ lépp luñ dugg sëñ Touba fekk ñu ca ak tawféexam ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen soññ nag ci addi ji bu baax baax waaye di leen soññ ci màggalu sëñ Modou Rokhaya gi magal gi nga xam ne moom la Serigne Cheikh Anta di wooteel Serigne Modou Rokhaya ñu war koo def le 8 janvier muy busub addiya ji nga xam ne dañoo yendoo dajale addiya yendoo jàng alquran yendoo jàng xasida yendoo jàng salaatu ala nabi yendoo def ay bernde def ko addiya Cheikh Mouhamadou Rokhaya ak ñam nekkal ca barzaqul mahmadiya di rakkam yu baax ya ak wajuram yu baax ya ñoo ngi ciy soññ ñëpp nag di ñaan képp koo xamante ne bii am nga yéene liggéeyal ci Serigne Touba yàlla na la suñu borom gàttandoog ndimbalam ak tawfeexam ba la nga ca bëgg a nga def ci lu kawe njortam wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu